ci problème mu discours yooyu ñu baree ngi jàngat discours yu jomaay bi mu génneeg léegi ah. fàtte woon naa la cee laaj noo ko jàngatee am na parce que da nga di ñii ne la guy ga ñii daqaar ga waaye kenn ku nekk da koy jàngate xam nga gars yi nag dañoo ga dañoo man li ma gën a bañ ci àddina mooy xeeb nit hmm. nit kenn du ko xeeb nit alalu yàlla la jomaay gisuma fi mu wax fi benn wax bu jar ñu naan waaw lii muy waxee nangam ak a oyof noonu. muy waxee noonu laaju laaju ñu ko baat xel xel xam-xam lañ ko laaj. Ah. boppam li ne li ne ci boppam. Mhm. moom lañ ko laaj mais laaju ñu ko une mhm. tonalité vocale maanaam baatam nu mu mel. Mhm. loolu intéressé wul Sénégalais yi. li intéressé Sénégalais yi mooy xam-xam bi yàlla def ci moom. te nag moom am na lu yàlla def ci moom lu li ñu seetuwut. Mm. ak moom moo Sonko moomu. Mm. gis nga dafa am école yoo xam ne ci Sénégal gi lañ nekk. Mm. de haute facture yoo xam ni cooma cooma du at mi pour dugg fa. Hmm. waaw te moom te moom kon nag li nga xam ne day wane ne Amadou Ba jàmbaar la ndax fa lañ ko fekkoon mu leen di jàngal. waaw mais Amadou Ba kay borom na ndox Ba kay doxalal doxalal waaw Amadou Ba waaw xam xam waa jomaay dañoo pànk ay ay dañ may gajji non non non bi ñuy wax ci jomaay da ko doon ruubee yow bàcc ban problème nga am ak jomaay <laughs> non Diomaye man loolu laa wax dama dama ne Diomaye <laughs> doomu aadama doomu aadama bul xool bul xool ah. ni muy waxee wala yu demee noonu ça importe peu mm-hmm. li nekk ci boppam ak projet bi mu yoree ngir defar Sénégal looloo am solo mm. mais du jëmmu nit keeg nii lay mën a waxee waaw mais bu mënee waxee noonu te bari xam-xam te mën a defar réew mi nag mm-hmm. wala boo defee te moom nee na ay loxoom set na te du sàcc te du jël alalu kenn mm-hmm. te soxlaalul kenn dara te Diomaye nag li mu wax na ko ñëpp wax nee na moom dana wax ne lii la am bala moo def dara d'accord Euh, kii dafay laaj mu ne. dafa gis ci campagne bi. Euh, ñu bëre di di maanaam di di di mel na di ayebal nit ñi seen ay jëmm. est-ce que ñu ne nit am na droit ayebal nit ci jëmmam na. damay euh, may wax ci campagne yu Sénégal. Mhm. tegal ñu sa programme. nit ki nit ki ni mu mel ñun soxlawuñ ko. Mhm. ñun programme am lay soxla. Mhm. mais toog sa sa sa nawle ngay nga koy attaquer physiquement. mais loolu sëñ bi kooku ku ñàkk xam-xam la. ok soo amee xam-xam physique gu nit ki doo ko laal da ngay indi sa programme bopp. boo convaincre Sénégalais yi ñu wooteel la. mais di xas imam imam nii la mel loolu soxla wuñ loolu ñun liñ soxla mooy sa programme yaa imam maanaam ñu bàyyi jëmm yi te te wax programme yi vraiment campagne boobu lañ soxla wax dëgg yàlla mhm. mais campagne yu xas saaga vraiment Sénégal war nay dépasser loolu soxla wuñ loolu kon bu kenn tuumal kenn déedéet kay candidat conseil constitutionnel validé ko fépp fi mu nekk nii képp ku taxoon doo jàll comme que nag waroon a jàllee jàllee nañ fa mais waxal sa programme Oui mhm. oui très bien. imam Khalil euh, Sénégal day Sénégal day dit Sénégal yi Imam day que imam leen la lay wax. Sénégal. Mhm. day les ñi sont venus mhm. parce que mën nay nekk. waaye dit que am nañ ko imam te Sénégal ko ak imam. waaw. dina fi dinañ ak yow. leen la lay wax imam. Mm. waaw il fi dinañ ak yow nga que nit ñi. parce que jiite nga jiite jiite nga nit ñi mais ëppoo leen xam-xam ëppoo leen expérience. cër bu la yàlla jox yaa ayyuhan naas la Babacar waxoon rek. inni qad wullitu alaykum wa lastu bi xayrikum jiitu naa falu naa mais gënuma leen de ëpp leen ma xam-xam fii imam ku fi jiitu di nga uyu ma di nga déglu nit ñi lan laa lay wax.